actuellement mi ngi pour le euh, président fédération ivoirienne de football tey jii nii euh, naka nga gissé poste bobu nonou aujourd'hui euh, problème bi am Côte d'Ivoire moy problème la moy lima rek. Mhm. élection démocratique la. Mhm. c'est le peuple ivoirien kii Il mhm. di yow du def campagne. 80 pour cent des Ivoiriens vont le mettre. toog ñu indi ko chaise bi loolu am na. Mhm. Mhm. mais xam nga comme un peu dans l' extérieur. waaw ci kii te a nekk Côte d'Ivoire pour xool. Mhm. am na yoo xam maîtriser wu ko. te dafa am xam ne nag euh, affaire poste politique. mais Didier dafay koo xam ne. dafa toujours ne man. man maay une personnalité transversale au niveau de la Côte d'Ivoire fépp laay dugg. Mhm. aw gauche droite fu dem lay dugg aw parti. Mhm. c'est man sama parti mooy peuple ivoirien. Mhm. te fofu la ko foofu la affaire yu nekk. parce que ou day jaayu politiquement. ou gars yi ko yombalal dara man nee ko keroog encore li lay wax ni gis nga ay groupement yi di voter ñu naan ay 5 les 5 groupements là. duñ la jox sen baat. peut être que fi nga afi ah, te di nga ne dem jox nañ ko keneen.

lu tax di comme par hasard. Mhm. ñu ngi ko ne ko demal. Mhm. ba pare rocceeku. loo xam ne. kenn mënu ko wax <laughs> kenn mënu ko wax <laughs> ah. donc ah, moo tax ma ko écoute moi bien pour man dañ demee ba gis na affaire bi da cee ku bëri ma ne ko bi di jéem a ma ko sa position bi nga yoroon pour man teye ko ba si kenn dafa teel sax ñu lay faralee fii ak fële man loolu laa ko wax. Mhm. parce que man am na benn mois dama ko ne carrément teggi tànk bàyyi affaire bi jarul ko. to tu as toute l'avenir devant actuellement de à cause de sa candidature on n'a jamais autant parlé de la fédération ivoirienne de football. en tant mm-hmm. Il y' a des élections moo fa mm-hmm. mais tey matin midi soir on parle que de ça. les télévisions. ça veut dire que c'est le personnage. DJ mm-hmm. qui fascine les gens. ma ne ko nag duñ ko yàq. su nekkee daf leen jaral yenn yi ñun baale que moom. man nag ndeysaan comme mënuma ci wax parce que. déjà avant même élection y xoolal un article bu Jeune Afrique la garde rapprochée de Drogba. Jeune Afrique kan lañ xiir man la ñuy jiital ci photo xam nga photo l'éminence grise de Drogba <laughs> mais boobu temps il préparait à ce que opinion publique Côte d'Ivoire mhm. naan voilà yéen a koy fal mais ba leen ko falee Sénégalais bi mooy mooy diriger fédération parce que li mu def Sénégalais bi koy def moo koy def lo moo tax dès bi dama ko ne bàyyi rek ma bàyyi la man li ma waxee naa la ko mais bàyyi ma taxaw fële jëm ma ci impliqué nga nekk à l'écart à l'écart tout ça parce que c'est une histoire ivoirien ivoirienne mhm. c'est-à-dire que rek euh, mu mu dem présenter wu wala mu bañ a jàll pour man aujourd'hui su doon man kese kese kese kese. Uh-huh. da leen abal da leen di may yëfam.